fan yu néew dox suñu digganteeg màggalug Touba di 18 safar loolee nag bokk ci li sabab xarkanamug Touba soppeeku lool ngir doomu aadama yi yeewoo ci dëkk bu sell bi di Touba di gën a yokku ba tax na mu bokk ci li sabab dëkk bi fees lool ndax ay doomi aadama rawatina lu jëm ci wàllug oto charrette ak yeneen yu xeetoog ñoom sëfoor yi yeewoo ci dëkk bu sell bi di Touba di ci jànkonteel ay jafe-jafe rawatina lu jëm ci wàllug circulation baytaala di chef de garage bu marché Ocas dikkat ca yooyu la jafe-jafe ñuy jànkonteel teel ak it di ñaan safoor yi ñu jàppalante. sëñ Lo moom moo xewle sëñ Tuubaa moom bu xewlee moom ñëpp xam ne moo xewle moom dam dëkk moom xat la baaxoo ndax moom ginnaaw sëñ Tuubaa xewle moom ñëpp fenn fu kenn ku fu mu nekk sa xel a fu mu nekk sa xel a ngi Tuubaa kon il faut Tuubaa xat et puis tam ak assainissement liggéey yoon yi ñuy commencé defar ak yooyu yëggagut moo ko yokk nag ak taataay moo ko yokk waaye murid yaa ngi Touba nag moom bu soxlaa moom il faut mu xam ndax ñëpp lañ bëgg a jëm kii di safooru Mbàkke Touba di wuyoo ci turu fàllu mbay di gën a leeral jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllu circulation bi ak ya ca aju ak it di leeral ci paas yi ñuy yokk bu yenn événement yi amee mu bokk ci li ko sabab aller retour bi ñu daan def ci diir bu gàtt bu dëkk bi xasee ba xat dootuñu ko mën oto yi mel ni Mbàkke Touba yi jëm si marché Ocass ak oto yëpp nag buñ mën doon jaaree njóobentaay bi di génne di wër di ñëw 28 moo gën ñu ñëw ba 28 di jub di ñëw ci poste contrôle ndax loolu day xatal buñ jaaree njóobantaay bi rek euh, jaar noonu tourné rek comme na mel bu jëkk njëkk sensibilité bi moo gën oto yëpp dañ dem te circulation bi dana wàññi ko bu baax a baax yokku paas yi ñu koy tax ñu koy yokk boo musaan yëf fii jëm mbake euh, da nga daan def 30 minutes dem booy yëpp fii nag jëm Mbàkke di nga def une heure de temps wala une heure de temps doo mën a dem loolu mooy waral yokku paas yi waaye du profité yi ngeen bëgg ci xaalis ndax duñu jaar fa ñu war a jaar te loolu bokk na ci li sabab circulation bi. safooru moom maanaam fii lu waral xataay bi moom moom sareet si la bokk ñu teel leen wutal yoonu suuf ndax xoolal fii yow lii nii deux voies yi xam nga lii péage la te gis nga carrefour bii sareet dañuy jéggi di jàll te normalement sareet waruñu ñoo jéggi foofu jaar ndax lii péage la gis nga oto yi autoroute la fële la oto yi jóge di jaar nii mais sareet yi chaque jour carrefour bi ñoom ñoo koy soxna si dib cliente safoor yi ci wàllug paas bi buñ ko mënoon a wàññi mooy li leen gënal. da yokk nañ paas yi lool ndax ñu ngi nii tataay lañ dugg te presque bu ñuy ñëw presque 150 la ñuy fay te loolu jaaduwul dañ ko waroon a bàyyi ci 100 francs rek mais yàlla dina def a te nit ñi embouteillage yi tamit ñu xool nu ñuy dawale tamit def ndànk rek daal mu mel ni nag jamono ji ñu toll dëkk bu sell bi di Touba xat na lool te safoori gan yi dugg seeguñ ba tax na nag safoori yi yeewoo ci dëkk bu sell bi di Touba di ñaan seeni moroomi safoor ñu def ndànk daw ndànk ngir ñu mën a am màggalu jàmm.